ziar naa la. maa ngi dolli ziar. ginnaaw baatu. wax dëgg la ñu la dégguñu la. waaw mais xam nga rek yaa ma gën a xam. xam nga moom jàmbu nekk li nga bëgg ak li suñu borom di dogal bu ma jógee sama combat ba léegi nag maa ngi soo a génn ci média yi di wax parce que dogal na ma xawoon a tawat waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla bu baax di sant sama sëriñ sëriñ Fallou di sant sëriñ Abdou Karim Mbacké di ñaana ñëpp màggal bi ñu jógee lépp lu fa waaye ñaan rek yàlla na nekk lu nangu comprendre ngi du nuyu waa ginnaaw raay du nuyu waa Pikine du nuyu samay mbokk du nuyu ñëpp di leen wax ne nag tane ñëw naa maa ngi samay entraînement incha allah balaa saison bi tëj léegi ñu gis ma nga daan taxandeer ñu ne déet nga yóotu Petit Baye Fall numéro 1. te kosi waaw boobu ak léegi Iba. waaw non boobu xam nga rek comme li ma rek bu dul woon tawat moom bëriwaat naa mais xam nga lamb ma ko prép bii passé ma ko préparé préparé bu métti ma pare ci xam nga am ci ay plaisir faju instant yàlla dogal na wér na damay maa ngi ko tane naa baax bu ma joxoon tey bu subaa ma préparé. fan la jëm non rek léegi léegi léegi rek léegi rek ndax def naa fi lu ma fi war a def def naa neuf combats ñaari défaite laa ci am man ci làmb laa dafa dogal wàllam ñëpp ma su ma bëree day neex su ma tuusee day neex su ma entraîné su ma ñëw damay indi ma waaw du may revanche. non may revanche non mënu ma may revanche. parce que non armée mi ngi bëreeg sama rak maa ngi ñaanal yàlla yàlla may ko ndam moom bébé Ama taxaw na. comprendre nga di ko ñaanal di ñaanal bébé Ama yàlla may ko ndam bu rëy nag parce que sama rak la ba pare ñoo bokk baax a baax waaw arrêté moom waaw. mën naa dugal tënkee. mën na xam naa kan la nañ ma ko jox. ah Tidiane Faye numéro 2. waaw comme wala ma ak moom. da ko da ko parce que da koy yar ma koy yar ma ak moom ñu bëgg sunu yaay man gis naa tiktokam nañoo ñu waaw barke yàlla ku baax la bëgg gis naa ko ay tiktokam gis naa ne muy jëflanteeg waajuram te ñun loolu lañ am dañuy mayante xaalis su ma joxee dama yóbbu sama kër su ma ko joxee moom day yóbbu këram làmb la rek waaw oh, barki yonent bi dama koy fanaanoo nga ñam waay man amatuma lu may ragal ci làmb barki Serigne Fallou amatuma lu may ragal musuma ragal ci làmb sax mais léegi dama waaw ku dul moom sax pare naa pour jël ko xanaa avance avance ma ko joxee mu jël ko lu leer laa la wax yow fee génn gu ma ba de yow yow ma tëngéej de parce que xam nga mooy loolu ay ci topp la waaw sama moo ne ne ma tëngéej sama xale yi si ñoom ñëpp mais xam nga affaire est-ce su ma jëloon Tidiane Faye defal ko bagage du yàgg su ma taalalee gàmmu gay loxo daf ma koy jox te lamb gàmmu gi Tidiane Faye sax moo gën a naqari gàmm daan gàmmu gay fuuf non non Tidiane Faye moo ko dàq bëre ma de waxuma waxuñu xeex de bëre laa la waxuma la moo dàq xeex dama la ne moo dàq bëre ci bëre laay wax ci cadre bëre laa ñëwaguma ci xeex Tidiane Faye adversaire na ma ak moom dañoo nduróo bokk tolloo taay tolloo bu ma préparé mu préparé lamb amateur la loolu barki yonent bi grand ah, non instant yekee rek waaw grand combat rek di la ñaanal di la sant di la gërëm di la wax ne xam nga li nga yow sama waay nga ñu ngi nuyu gars yëpp ñu ngi seetaan di jégaluwaat ci kàddu yi képp ku ci gis boppam rek ñu ngi na ñëw ma seere ko instant yi téye na ñëw ma seere ko